bi yi ginnaaw ba mu amee jël nañ mesures yoo xam ne mesures yi am solo la benn bi mooy euh, ki nga xam ne feebar daf koo dal ñi nga xam ne ñooy njabootam tey jii ci guddi daan leen yóbbu otel loolu mooy li nga xam ne moom lu gouvernement bi décidé te tam moo gën dañ leen yóbbu ñëpp hôtel muy waa këram yëpp lu mat fukki nit la kër euh, rakkam bi nga xam ne moo ko gënoon a jege tam parce que dafa daan nekk ak moom ba mu feebaree tout ça booba xamuñu ne coronavirus ko dal moo ko jàpp euh, kooku tam dafa jege woon donc ñoonoon ñu ay contact à risque lañ ñooñu aussi dañ leen di yóbbu bu mat daal buñ ko xaymaa ci tàmbali bi parce que xamuñu fan la ñu jëm ci tàmbali bi mat la ñu mat euh, ñaar fukki nit tey ji hôtel ba lañuy fanaan ni dañ libéré ñaari kër yi ñu jël leen ak suñu moyen transporter leen ñoo leen di defal lépp bu ñu demee ci hôtel ba ñoo leen di yoreel seen lépp ku ci nekk ñu yóbbu leen seen nekk xool leen may leen temps ñu xool ndax dañuy développé feebar ba mu déet kër ga ñu tëj ko am ñu gardiennage ñu yóbbu ko police mu fay garder 24 heures sur 24 di ko surveiller parce que ay bagages ak ma seen i lépp nga fa loolu bokk na ci mesure bu ñuy jël tey beneen bi mooy euh, transport bi nii ni ñuy mel ci transport bi jaaduwul. dañuy sax fees dell te te dafa nekk loo xam ne mënatuñ ko nangu ba tax na li ci arrêté bi wax moom la ñuy appliqué tolérance daal dootuñ ko dem li mu mën a yëpp muy xaaj bi ba nga xam ne day féex du am concentration humaine nit ñuy weccoo ay euh, noy lépp mën fa am euh, loolu daal dañuy fexe ba suba loolu dootul mën a am dañ ko tere ñi nga xam ne tam dañuy dugg ko génne di dem ci yeneen région yi ci dugg ko génne ñooñu dugg ak génne bi dem bég ñëw bi mooy waral feebar bi di tasaaroo loolu aussi bañoon nañ ko naam jàpp nañ ay jakarta jàpp nañ ay oto waaye dañuy gën a taxaw pour loolu pour loolu bañ a am si biir marché bi tam ma dellu si am na ay koñ yoo xam ne moom saa yoo demee day fees teel ak ay nit lu mel ni maquette bi fu ñuy jaay ay portable ak yooyu saa yoo demee la fay nekk ji nit ëpp jéggi na dayoo yooyu à partir de suba yooyu yëpp dañuy di tas point yooyu yëpp dañuy di tas ba kenn dootu fa ne ba tax na ñay jaay lal wala ñay nekk sa cantine wala nga xam ne dañ teg seen table ñoo ñooy nekk ci marché bi waaye ñëpp ñi nga xam ne dañuy taxawaalu fees dell ci koñ yi yooyu dañ koy tas te ci marché yëpp la du ci marché Ocass rek marché yëpp la ñuy tas fépp foo xam ne ni ñu dañ fay dajaloo euh, raj dajaloo fa dañ koy dindi ba loolu dootu fa dootu fa mën a am. heure yi nag heure yi. heure yi ba 3 heures la euh, xam nga ne loolu lañ leen mayoon sax naam ndax sous-préfet jëloon na benn arrêté ne marché yi day tijji 6 heures ba 3 heures waaye après moom mayoon na tolérance sax ba 4 waaye loolu dañ ci dellu si dootul maye tolérance 6 heures 3 heures fu mu jotee cantine yëpp tëj nañ marché bi laal li nañu parce que booy toléré kay day fekk yaa ngi si jàmm waaye yaa ngi loo xam ne ñun xamuñu fan la ñu jëmee ndax contact communautaire dafa dafa grave parce que xamu ki ka am xamul fan la ko jëlee xamul sax ñamu wàll loolu nag buñ ko amee dañuy defaraat suñu toogaay moo tax la ñu maye woon dootuñ ko maye règlement bi daal tëral dañ koy respecté ndax dañuy bañ bu law ba jéggi ñu tey dégg day rombuñ euh, waaw li ma ciy leeral rek mooy li ngay li wax ni yaa ma ko yëgal yëguma ne bañal nañ ay nit ñu waroon na nangul autorisation yëguma woon ne ay nit faatu faatu nañ loolu yow mi yaa ma ko yëgul donc mënuma cee wax dara. waaw média bi relayé nañ waaw loolu boo ko média bi waxee man xawuma ko yëguma ko fii laa ko yëge li ma mën a wax daal mooy ku am rendez-vous médical soo indee sa kayitu rendez-vous médical boo ko indee gouvernance ma may la autorisation nga dem seet sa docteur si saa si amul dem man dem te ñëw boo ko yóbbee préfecture tam wan ko kayit gi ñu def ci rendez-vous mu sëñal la si saa si jox sa kayit nga dem sa rendez médical léegi léegi waaw bu nit ñi baree bu nit ñi baree loolu accès yi ñun koy jafe na parce que ñëpp soxla nga sonn ñoo ko soxla boo xamte mën fa am waaye bu nit ñi organiser seen bopp rek ah loolu du mën a am te fi mu te loolu mooy jamono yi nga xam ne jëluñu woon mesures yi la amoon boo xamte bi ak euh, bëri bi mais actuellement nii foo dem feex na ndaxte dañoo dañoo dañoo corser mesure bi foo dem moom mën nga faa doo fa am cinq minutes bu fekkee ne indi nga kayit yi ci war ñu xoolee kayit yi mu jëkk aha kay doo ñëw rek indi sa kayit n'importe quel kayit xam nga boo demee tey sa pharmacie ba ñu ne la garab gi si ordonnance sañ koy jënd doo préparer doo présenter n'importe quelle ordonnance da dangay présenter ordonnance bi nga xam ne docteur bi moo la ko bindal ñun tam boo ñëwee pour bëgg rendez-vous da ngay présenter boo euh, euh, kayit goo nga xam ne médecin moo la ko bindal buñ ko xoolee xam ne lii fu dëgg yàlla rendez-vous loo xam ne kenn naa tablew ko ah dañ di jox sa autorisation nga dem faju ji parce que ñun yéen rek ñu soxal askan wi rek la ñu am